mooy forum civil ak ben kuréel bi ñuy wax tas justice network dañu décider lancer ben campagne bo xamantene ñu ngi koy wax arrêtons l'hémorragie manam nañu xex xaalis bi nga xamantene mu ngi génn Sénégal di dem bitim réew te xaalis bobu mënon dess biir Sénégal ndax ñu utiliser ko joxat ko Sénégalais yi tabaxal leen ci ay tal tali defar leen ci ay hôpital ay école yu baax ak bépp jumtukaay boo xam ne doomu aadama soxla na ko pour dundam mën a yemb xaalis boobu nag ñu ngi koy perte parce que tout simplement état Sénégal ak yeneen état yi nga xamante ne dañ nekk Afrique am ñu doole pour mun a saytu loolu parce que yenn entreprise yi fi ñëw di liggéey ñenn ñi dañuy dem ci ay li ñuy wax ay paradis fiscaux paradis fiscaux mooy dëkk yoo xamante ne ko fa ubbi ku fa ubbi compte compte bi kenn du xam kan moo ko moom kenn du xam kan moo fa lan moo fa dugg ak lan moo fa génn ak leneen ak leneen mais loolu yëpp état daf mun forum si dañ ne dañ ko war a xeex ndax loolu dagg parce que xaalis boobu bu fi desee tey ñu dem bitim réew di uti ndimbal parce que bi ñu saytoo xaalis bi nga xamante ne moo fiy dugg chaque année ci ndimbal muy dëkk yi nga xamante ne dëkk bitim réew la dëkk nasaraan yi ñoo ñu koy may ak xaalis bi nga xamante ne ñu ngi koy luubal di ko yóbbu bitim réew ci flux financier illicite daanaka benn la donc bu ñu xeexee ba xaalis bi mën a des suñu biir réew dootu duñ soxla dëkku tubaab yi di ñu wàllu si mm-hmm. ni def pour xeex ko mooy état moo war a lëkkaloo ak lépp li nga xamante ne waa secteur privé la waa secteur public la mais tamit kuréel yi nga xamante ne ay kuréelu citoyenne lañ ay euh, euh, société civile lañ bokk mais ñu intéressé wu ci lépp li nga xamante ne xaalisu guerre la pour mun ko xeex. bu ñu lëkkaloo loolu ñu fexe ba exonération fiscale yi nga xamante ni état Sénégal mun koy def mais leerul ñu arrêté ko convention fiscale yi état Sénégal di signé ak ay paradis fiscaux. ñu arrêté ko lépp li nga xamante ne ay corps de contrôle la comme ay ARMP ay IGF ay ay IGE yooyu yëpp nga xam ne ay dañuy saytu liggéeyu ndawalu buur yi bu at bi jeexee ñu déposé ay rapport ñu bàyyi leen ñu def seen liggéey nu mu waree rapport yi bu ñu ko déposé aussi li ñu ci war a def ci mu jaar yoon nañ ko def ni ñu ko war a defee donc loolu bu ñu ko defee daar xëy na xaalis bi nga xamante moo war a des Sénégal mu def Sénégal ba état Sénégal mun ko jëlaat delloo ko. askan wi tey dañu débuté campagne bi fii géejawaay parce que géejawaay daanaka askan wi dañu ndóol te xaalis boo nga xamante ne mooy rëcc Sénégal di dem bitim réew xaalis boobu la ñu war a jël defar leen ci ay écoles yu baax defar leen ci ay hôpital yu baax ay jumtukaay yu baax ay dëkkuwaay yu baax parce que bëriwuñu doole bëriwuñu xaalis loolu rek la leen état mën a defaral moo tax ñu ne nañu def campagne sensibiliser population géejawaay mais ak banlieue bi yëpp ba ñu xamante ne am na loo xamante ne mënoon na ñëw ci ñoom mais nii la demee ba ñu koy perte ñoo ci war a taxaw xeex ko. ñi koy rëccal mooy multinational yi nga xamante ne ñu ngi ñëw Sénégal di di fi di fi liggéey par exemple tey boo demee Sabodola foofu ñëpp xam nañu am na or. tey boo demee Sabodola bokk na ci village yi gën a pauvre Sénégal yi gën a ndóol Sénégal man damay wax toujours mënuma comprendre nit bu toog ci montagne or ba pare. nekk koo xamante ne dafa ndóol lu tax mu ndóol mooy par exemple euh, justement multinationales yi jël or boobu di ko exploité di ci am ay milliards yi milliards ay bénéfices mais li ñu war a delloosi en terme de euh, redevance fiscale maanaam li ñu war a delloosi ci juuti. pour mu simple delloo si ko comme ni mu waree parce que dañu ut ay pexe yoo xamante ne xaalis boobu dañ koy rëccal yóbbu ko bitim réew donc état Sénégal perte ci état Sénégal bu mënoon capter xaalis boobu da koy delloowaat waa Sabadola ci defar seen dëkkuwaay ba nga xamante ne dina mën a nekk lu baax tey loolu bu amul loolu moo tax xale yi di jël ay gaal di uti Barça wala Barsak loolu mooy dëkk xale yi di jël désert bi naan dañuy dem ay Libye wala dañuy dem ay ay Espagne ak parce que dëkku tubaab yi ñoom seen dëkk. riche na ba pare maintenant dañuy ñëw suñu dëkk yi nga xam ne dafa ndóol liggéey fii am fi ay koppar yu bari mais ñu fi war a fay ci juuti duñ ko fay xaalis seen dëkki yi di continuer di jàng suñuy dëkk yi di continuer di ndóol suñu doom yi toujours dañuy bëgg dem ci dëkk yooyu nañu liggéey ànd ñun ñëpp boole doole yëpp xeex ba nga xamante ne xaalisu luubal bi xaalisu ger bi ak xaalisu sàcc bi day are loolu yëpp day dakk mu mun a dugg ci koppar ci gafa réewu Sénégal Sénégal mun ko utiliser waat ni mu waree pour ñëpp Michel Mendy coordonnateur forum civil section Guédiawaye Michel Mendy coordonnateur forum civil section Guédiawaye Oui, nous avons organisé aujourd'hui une caravane. Cette caravane, c'est dans le cadre de la campagne Arrêtons l'hémorragie. Le Forum civil, en collaboration avec TAS District Network, a décidé de mener une campagne contre les flux financiers illicites. Donc la campagne va débuter en 2020, et va se poursuivre en 2021, 2022 et 2023. Ça va durer donc trois ans. Donc euh, l'objectif de cette caravane est de lutter justement contre les flux financiers illicites parce que comme vous le savez, beaucoup d'argent échappe au trésor public des pays africains et de beaucoup de pays du monde, mais particulièrement des pays africains parce que ce sont des pays qui ne sont pas assez outillés pour traquer ces flux-là. Donc euh, aujourd'hui, comme le montre le rapport Mbeki, il y a au moins 106 milliards de francs CFA qui échappent au fisc sénégalais par an et cet argent pourrait servir à l'aide publique au développement. C'est pourquoi nous disons que les États africains, en fait, n'ont pas besoin de l'aide publique au développement parce que si nous calculons l'argent que les États prennent pour, en termes d'aide publique au développement et l'argent qu'ils perdent en termes de flux financiers illicites, le rapport il est presque Égal. Donc si nous travaillons à capter ces flux financiers illicites-là, à les empêcher d'aller vers d'autres horizons, par exemple en Europe, parce que la plupart d'entre ces flux-là migrent en Europe, on pourra les réutiliser en termes d'investissement de, dans, les, dans, dans les services sociaux de base au bénéfice des populations. C'est pourquoi nous avons jugé au Forum civil nécessaire de nous mettre en collaboration avec TAS du Network, justement pour combattre ces flux financiers illicites. Et aujourd'hui, nous lançons cette campagne-là ici par une caravane à Guédiouaï, parce que Guédiouaï est une banlieue de la, capitale, de Dakar, et c'est les populations qui sont les plus pauvres qui souffrent le plus de l'effet de ces flux financiers illicites-là, parce que tout simplement, le trésor public pourrait resservir, redistribuer cet argent équitablement dans les services sociaux de base. Justement, si le trésor ne parvient pas à capter ces flux-là, il lui est difficile de donner un service social de base de qualité aux populations, comme les populations de Guédiawaye et généralement de la banlieue dakaroise. Mm. Ah, ce qu'il faut, il faut, il faut aujourd'hui que l'État puisse travailler avec, les services, avec le, secteur privé et le secteur euh, public mais aussi les organisations citoyennes, les organisations de la société civile, pour mener une campagne ensemble, coordonner les activités, sensibiliser davantage les, populations, mais aussi arrêter les exonérations fiscales, arrêter, de, euh, arrêter la, fiscalité nébuleuse, arrêter les euh, conventions fiscales, nébuleuses et libérer les corps de contrôle pour qu'ils puissent déposer leurs rapports, traquer les malfaiteurs financiers et les mettre au pied devant la loi pour que justement ils, qu'ils arrêtent ces pratiques nébuleuses-là qui nous font perdre beaucoup d'argent. Mais c'est les multinationales qui viennent travailler au Sénégal. Par exemple, nous avons à Sabodola de l'or il y a beaucoup de multinationales qui s'activent à Sabodola. Mais ce qu'on remarque, Sabodola fait partie des villages les plus pauvres au Sénégal. On ne peut pas être assis sur un pont d'or et être pauvre. Parce que justement, les multinationales qui exploitent cet or-là ne reversent pas les dividendes en termes de fiscalité dans le trésor public. De ce fait, il y a beaucoup de flux qui échappent au, Sénégal. C'est les multinationales, mais aussi c'est les pratiques illicites, c'est le banditisme, c'est le blanchiment d'argent, c'est l'argent de la criminalité, l'argent de la drogue, c'est l'argent de la corruption tout simplement, la petite et la grande corruption, la corruption que nous vivons au quotidien. Donc toutes ces pratiques-là font perdre énormément d'argent et il est temps qu'on puisse ensemble lutter pour capter ces flux-là, les remettre dans le trésor public pour que justement l'État du Sénégal puisse les réinvestir équitablement en termes de services sociaux de base pour les populations.